Ah, dañuy wax ne. Ah, jàmbaar bu nekkee ca waar wa. waaye da daan am ñu topp seen ginnaaw bi leen ji. dëgg la tey mooy fanfare bi. dëgg la. Mbàkke di waajal bis bi nu jagleel volontariat def te yàlla tax waa croix rouge bu département de Mbàkke am si nag taxawaay bu mat sëkk di bésub juróomi fan si weeru décembre gox bi doon célébrer yoonu volontariat loole waral croix rouge si wàccaay bi ak caravane bu am solo wër nag arteeru Mbàkke yépp ngir nag kañ nit ñi ñu mën a respecter gestes barrières yi xam ngeen ni kat jamono ji corona bi mu ngi jógaat tàmbale nag dugg si askan wi naka noonee volontaires yi nga xamante ni bu dul dara sax ñi ngi ci terrain bi di jàppale askan wi te nag du ñu mës a yi wala dellu ginnaaw tey jii nag gën a wanewaat seen pas-pas ci distribution de masques partout ci mbooleem artère u Mbàkke yi ay waxtu yu bari lañu amal caravane fu nu romb ñu bàyyi leen xel ñëpp nag rafetlu taxawaayu croix rouge ànd ak fanfare bi mu doon nag ay moment de mbégte ak ay moment d'ambiance su cëppaa ndaw la lañu amal waxtaan ngir nag dellu si si sababu bis bi xool démb da nga xam ne suñ président national euh, lépp luy dox ci département bi xam na xam na ko moo tax mu jagleel ñu bis bii samay wax nag du ci jot a jot a gudd xam naa yéen ñii daal dama leen di sant gërëm leen gannaaw bu ma sante président bi mu ñu joxe bi mu leen joxe seen njukkal ci seen jëf ak seen taxawaay ndax ku bëgg a gis waaw bu xubbu croix bu mànkoo bokk ndey bokk baay ñëwal Mbàkke déggal jubóo nañoo yëpp service yëpp jubóo nañoo ak ñoom la préfet départemental la ministère social ñëpp kenn yéen ñëpp kenn ku ne joxante joxante ñoom moom loxo ñu nekk benn ñu di ñu jàppale ñu leen ñu di leen jàppale ci suñ kemt laayeen man-man ba tax suñ bis bi ñun ñëpp ñu bokk ko ànd di ko doxal incha allah defe naa bu subaa ca ngoon koo xam ne teew nga Mbàkke da nga ne alhamdulilah rabbil alamin suba incha allahu rabi woo naan askan wi yëpp ñu génn si ànd ak nun ci bis bi nu jagleel di xam ne rek li tax ñu jagleel ko Mbàkke mooy ànd ak Mbàkke juboo waa Mbàkke kuraaw su Mbàkke nit noone benn te itam di royukaay ci Sénégal ñoo ngi sant suñu présidente national di sant ñi nga xam ne ñoo jógee Dakar euh, monsieur Ndiaye fii mooy représentant de jeunes monsieur Diallo mooy coordonnateur donc des jeunes ci comité national monsieur Mayla Baba Maysa Bigué mi ngi fi ak département yi nga xam ne invité yëpp ñoo ngi sant ñëpp di wax ne incha allah suba na askanu génn askanu génn ñëw ànd ak ñun ci journée bi ñu jagleel Mbàkke muy le volontariat di wax ñëpp nag ñu respecté geste barrière yi mooy ñuy takk masque tey itam di laal gel lii nag liggéeyu croix rouge la kon suba buñ ci am xel ñaar dina ci def ci jàmm incha allah. caravane bi mooy changé am dëgg bi li koy changé mooy benn sensibilisation wax askan wi ne leen attention respecté les gestes barrières benn point la ci yu croix rouge war a jàllale ñaareel ba mooy ñu wax askanu Mbàkke ne leen suba le 5 décembre. at mu jot day dañuy màggal bis bin jagleel def te yàlla tax muy volontariat Sénégal di ko abrité Sénégal tànn Mbàkke mu Mbàkke tànn askanam kon li jaral karawaan moo ñu gël waa Mbàkke ne suba képp ku dëkk Mbàkke Tuubaa xamal ne ñoo ngi sargal képp kuy def te yàlla tax kon fi ñëpp la looloo tax ñu ne nan def caravane waaye itam ànd ak sunu gan ñi xam ne leen invité ñoom ñu xam ne waa Mbàkke Croix-Rouge Mbàkke nii la mel ak waa dëkkam surtout lool looloo tax ñu def caravane bi ak ñamal waa Mbàkke lii xew tey ni subaay dàq waa fanfare ñëw comité ñëw animation ñëw jeunesse ñëw anciens élèves ñëw lii daal ñamali la suba lay daaw. Croix Rouge joxe rendez-vous le 5 décembre nag ngir nag fête yi journée bi nu jagleel wàllu volontariat mboolem Sénégal ñoo ngi tey Mbàkke ngir ànd seeg ñoom waa Croix Rouge bu Mbàkke.